dem ba 500 francs euh, lu jëm ci li nga xamante ni également moom mooy euh, saaku ni euh, ceebu non parfumé bi nga xamante ni mu ngi woon ci mille francs ñu yóbbu ko ba mille francs mu mel ne nag daal li nga xamante ni ñoom ñoo di commerçant yi ci marché yi ñoom ñëpp nemmeeku nañ li nga xamante boo di yokkute boobule ak yem ak fi nga xamante ni nag askan wi ñu ci bëri ñu ngi xaar wàññite li nga xamante ni moom moo jëm ci jëkk dund gi wante li ñu nemmeeku daal ci li nga xamante ni moom moo di marché yooyu mooy yokkute lu jëm ci wàllum ceeb bi nga xamante ni euh, li nga xamante ni moom moo di kilo non parfumé bi doon jar 350 dem na ba 500 francs sac bi doon jar 17000 mu dem ba 19000 loola nekk nekk ab njaxare ci askan bi euh, gannaaw bi nga xamante ni nag askan wi ñu ci bëri ñu ngi doon xaar wàññite li nga xamante ni moo jëm ci dund boobu boobule lan la ci nguur gi war a gën a taxawee euh, ci daar daar fexe ba daal li nga xamante ni moo jëm euh, ci prix yooyu la ñu mën koo euh, gaaw wàññi même su fekkente ne sax lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di wàññi boobu lee mënul am pour le moment lu jëm ci li nga ni moo di prix yi nga ñu jot teg ñu mën koo respecté ngir rek mbir yi bañ a yokk mu mel ne loolu la ñuy waxtaanee bokk na ci également li ñuy waxtaanee mooy lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di assise de la justice yi nga xamante ni ñu ngi koy amal. foofu lee ca jam ñaajo mu mel ne nag daal nak coow lu bëri am na ci ndax am na ci ñenn ñi nga xamante ni ay ay jëwriñ yu ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu yoon la fii ci réew bu Sénégal di ci mel ne ñoom Ismaïla Madior Fall da ci mel ne ñoom Aïssata Sall ñëpp joxoon nañ leen ay invitation ngir nag ñu fekkee ndaje boobule wante ñoom ñii nag dañoo décliné li nga xamante moo di invitation boobule ndax nag ñenn ci ñoom jàpp nañ ne daal li nga xamante ni moom moo di daje le am na ci ay solution yoo xamante ni Euh, mu ngi fi woon ba noppi euh, jàpp nañ ne ñoom buñ ko euh, jëfe woon rek xëy na lépp dana yemb mu gën daal di dajalewaat mbooloo mi foofu lee ca jam ñaajo ngir nag waxtaane lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di wàllum yoon leneen li ñuy waxtaane également ci li nga xamante ni moom moo di ab étude bu ñu def lu jëm ci yenn ci ay produits yi notamment li nga xamante ni moom mooy yenn ci alim produits yi nga xamante ni dañ koy xale yi dañ koy utiliser lu ci mel ne ay chips ay jus ak euh, yenn ci yi nga xamante ni daal euh, euh, boutique yi dañ koy jaay te xale yi di ko utiliser ñu koy wax li nga xamante ni mooy les aliments yi nga xamante ni daal xale yi ndaw yi dañ koy utiliser ay friandises ay jus ak ay chips yu mel. yooyu nag daal étude bi ñu ci def gis nañ ne dafay faat lu bare bëri ci ay ndaw yoo xamante ni ay xale lañu ñenn ñi sax mu leen di indil ay AVC ñii mu leen di indil ay obésité. ñenn ñi mu leen di indil ay jabet eh, yooyu yëpp nag dal ban taxawaale ci état bi war a am ngir nag produit yooyu la ñu gën ko saytuwaat surtout ci li nga xamante ni moom moo jëm ci boutique yi ndax gis nañ ne daal eh, xale yi dañ koy faral di jëfandikoo te dafay indil jafe bu bëree bëri li nga xamante ni moom moo di eh, xale yooyu le ban taxawaay la ci état war a am ngir saytu produit yooyu nga xamante ni dañ koy jaay ci marché yi notamment également ci ci boutique yi te ñu nemmeeku ne daal am na ci ay jafe-jafe yu bëri yoo ne daf koy indil xale yi ndax gis nañ ne daal lu ci bëri ñoo xamante nii daf leen di eh, faat ñenn ñi da di indil déficit nutritionnel ñeneen ñi da leen di indil eh, eh, diabète ñeneen ñi ay obésité ñeneen ñi ay AVC loolu yëpp daal nemmeeku nañ ko ci étude bi nga xamante ni def nañ ko ci li nga xamante ni moom la ñu duppee aliment yooyu li nga xamante ni daal mu ngi indil ay jafe-jafe ndaw yu bëri ci réew bu Sénégal loole la ñuy waxtaanee ni ki tey ñuy xaarandi rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di. téléspectateurs yi ñu mën a jaar ci buumu jokkoo bi ngir nag daal euh, addu wax ci li nga xamante ni moom moo jëm ci jotaayu waxtaan bi leneen li ñuy waxtaanee également euh, bokk na ci lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di aliment de bétail bi nga xam ni daal nemmeeku nañ ne tamit am na ci ab euh, subvention boo xam ne état bi def na ko ngir wàññi ko ngir jàppale ñi nga xamante ni rek daal ñoom ñooy teefanke yi ngir nag daal xar yi nga xamante ni dañ koy indi ci tabaski bi. Euh, mën ko yombal ba ñëpp mën ci jot mu mel ne nag daal lu jëm ci euh, saaku aliment de bétail boobu le 5000 francs lañ koy euh, jaayee ci li nga xamante moom mooy subvention yi nga xamante ni état di Sénégal def na ko mu mel ne nak dafay wéy rek comme niñ ko doon defee saa su nekk lu jëm ci subvention lii di aliment de boobu le loolu mooy nekk ponk yi nga xamante moom la ñuy waxtaanee ñu leen di xaarandi ci bu mu jokkoo bi ci 77 810. 90 euh, 90 ngeen mën a dugg àddu joxe seen xalaat ci li nga xamante moom moo di jotaayu waxtaan bi euh, bi nga xamante ni nag moom la ñuy am nag yenn saa su nekk bu waxtu wi jotee ni nga ko waxee sànq ni ki ñu ngi waxtaanee lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy euh, assise de la justice yi nga xamante ni ñu ngi am foofu lee ci diwaan bu jam Diamniadio ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew mi di Bassirou Diomaye fay mu ngi fa woon àdduna ci li nga xamante ni moom mooy. Euh, taxawaay bi nga xamante ni euh, justice bi war na ko am ngir nag euh, mën a am indépendance sam bu baax a baax ngir mën a doxal li nga xamante moom moo di liggéeyam bi nga xamante ni nag moom mooy tax ñu xam ne état de droit am na ci réew ndax bu ñu waxee justice rek daanaka moom mooy moom mooy réew bu ñu ne état état justice moom moo ko yor je pense que ne tey bu ñu amee un justice bu bu indépendant bu tëddee njaaxanaay ñëpp dañuy nekk ci. Euh, dans de conditions yoo xamante nii euh, danañu mën a vaquer à leurs occupations parce que ku ci nekk tey boo amee jafe-jafe ak yoon doo am ñaari xel wala xel mu tey que ne boo demee xëy na yoon dana atte atte bi nga xamante ni atte bu jaar yoon la donc jàpp nañ ne tey euh, li nga xamante ni moom moo di assises yooyu la buñ ci génnee war na indi de solution yoo xamante nii tey képp ku nga xamante ni am nga jafe-jafe ak wàllu yoon nga mën a am espoir mën a am yaakaar ne eh, li nga xamante ni moom moo di yoon dana def liggéeyam dans toute transparence te du am benn par parlo donc loolu la ñuy xaarandi ci li nga xamante ni moom moo di conclusion yi war a am foofu lee ci assises yi nga xamante ni ni tey eh, lañ koy amal foofu lee ci eh, jam ñaajo euh, mu mel ne nag am na ci ay kilifa yu bëri yoo xamante ni teewe nañ ko même su fekkente ne am na ñoo xamante ni ay ancien ministre de la justice lañ te ñu euh, joxe leen invitation à que ñu euh, ñëw fekk ci ndaje boobule. ñoom ñu jàpp ne daal ndaje boobu boobulee euh, solo si taxu ko bëri ndax euh, lépp li nga xamante ni moom la ñu war a jëfee ngir nag euh, yoon mën a def liggéeyam am indépendance loolu yëpp yemb na te mu ngi fii am na ci loo xamante ni mu ngi ci assises am na loo xamante ni gouvernement bi fi génn jotoon na ko liggéey ak lii di magistrature ñu jàpp ne yooyu yëpp bu ñu ko jëlee tënk ko xëy na bu ci tënkoo danañu mën a liggéey li nga xamante boobu moo di wàllu yoon Euh, te mu ànd ak indépendance bi nga xamante ni dinañ mën a def seen liggéey euh, ni mu euh, waree. leneen li ñuy waxtaanee également mooy yokkute bi nga xamante ni ko nemmeeku nañ ko commerçant yu bëri sax addu ci lu jëm ci li nga xamante moom moo di njëgu ceeb bi nga xamante moo di non parfumé kilo bi doon jar 350 dem ba 500 francs sac 50 bi doon jar mille dem ba mille francs loolee nag lu ko waral. Euh, ñu ci bëri euh, ci commerçant yi euh, ñoom xamuñu exactement li ko waral wante gis nañu daal yokk am na ci li nga xamante moom moo jëm ci ceeb boobule te yemook nag fi nga xamante ni Sénégalais yi ñu ci bëri ñu ngi xaar ba tey lu jëm ci wàññitee li nga xamante moom moo di dund bi ñi nga xamante ni daal Sénégalais yi jàpp nañ na ñoom war nañ ko wàññi ci li nga xamante ni moom moo jëm ci dund boobu le Euh, mu mel ne nag euh, gis nañ ne daal lu jëm ci wàllu ceeb bi moom am na ab yokkute bi nga xamante ni euh, am na ci boor boobule. leneen li ñuy waxtaanee également bokk na ci li nga xamante ni moom moo di yenn ci ay aliments yoo xam ni ñoom la ñu duppee ay aliments yoo xam ni xale yi ñoo koy utiliser lu ci mel ne chips lu ci mel ne li nga xamante moom moo di ay yenn ci jus yu nga xamante ni ay jus colorant la yoo xamante ni ndaw ñi dañ koy utiliser. ñu nemmeeku ne nag ay jafe-jafe yu mag lay indil ah, xale yooyu le ñenn ñi di ci dem ba ci am diabète ah, wala obésité wala sax ABC loole nag ban taxawaay la ci nguur gi war a am ngir nag saytuwaat yenn ci aliment yooyu nga xamante ni ah, dañ koy jaay ci marché yi rawatina ci boutique yi ba ndaw ñi di ko jëfandikoo boobu leen di indil yenn ci ay jafe-jafe. ñu nuyu di ziar bu baax a baax suñu téléspectateurs yi également ñi nga xamante ni dañuy ànd ak ñoom saa su nekk. ci li nga xam moo di buumu jokkoo bi euh, Ibrahima Pleya ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam Abdou Diallo ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax soxna Binta Diallo également ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam euh, di nuyu Pape Ibrahima Faye aussi euh, di ko ziar bu baax di ko jox wàccuwaayam di leen nuyu ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di xaar li nga xamante ni moom moo di téléspectateur ci buumu jokkoo bi ñu mën a dugg addu joxe seen xalaat ci li nga xamante ni moom moo di jot ay waxtaan bi. lu jëm ci euh, li nga xamante moom moo di journée jaloog bi nga xamante ni nag euh, foofu lañ koy amalee ci diwaan bu Diamniadio euh, xam ngeen ne ci 28 mai moom la ñu tànnoon bés bi nga xamante ni moom la ñu jagleel lépp lu jëm ci dialogue boobu lee nag ki fi nekkoon njiitu réew di président Macky Sall moom moo ko tànnoon le 28 mai dédié ko journée nationale bu dialogue ki nga xamante moom moo di Bassirou Diomaye Diakhar fay ba mu ñëwee également mu euh, dëggal bés boobule bàyyi ko foofule ngir nag ñu koy amal mu nekk journée nationale euh, bu dialogue mu mel ne am na ku nekk ci buumu jokko bi euh, bu fekkee ne jàppandi nañu jël ko asalaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullah Ibrahim. waaleykum salaam wa rahmatullah. Xalilullah. bu baax Cheikh Ahmed ah, wax nga ne daal. Eh, sa turandoor wax Ibrahima bis bu mag bi ci suñ kanam. yàlla nañ mhm. ci yàlla yóbbu jàmm nga ne daal ren moom ah eh, Ibrahima yëpp dinañ dinañ yombal eh, mbirum gàtt yeeg yooyu arfaan yi. Ah, waaw loolu day la ñuy sàkku moom. waaw ah, yàlla nañ ko fekkee te tal ko te lépp jàppandi te ñu bari te yàlla nangul ñu ko yàlla bu nekk suñ mu jóg tabaski bi jaxee rasul amiin amiin ah, beneen bi nag mooy li gën ëpp solo xam nga ñun gànjar xam nga gànjar li ñuy wax gànjar nooñu ko fëree ci wolof gànjar. gànjar. maanaam suñu suñu gànjar pire li nga xam ne moom moom la ñuy sagoo moo ëpp li ñuy suñu gànjar suñu koom mooy ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne ndeysaan euh, dañu wax ne réew mu ne. Mhm. Euh, pour nga xam seen ëllëg yaa ngi koy xamee ca ndaw ña. Mhm. Euh, bu boobaa nag lépp luy euh, tax xale ndaw ñi mhm. euh, seen xel yi seen xel yi ak seen wér-gu-yaram xam nga dafa am lu am solo ci nit mhm. muy li ñuy wax xel xel maanaam defe naa dégg naa ci sa sa tomb yi nga wax ne am na lu ñuy jëfandikoo mhm. loo xam ne mën naa yàq mën naa yàqal ndaw ñi lu bëree bëree bëri mën naa tax sax see dootuñ amal njëriñ seen bopp waaye dootuñ amal njëriñ seen askan waaye dootuñ amal njëriñ seen ëllëg loolu nag loolu nag loolu nag loolu nag wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla Ibrahima loolu moom matuwaay lañ ci war a jël. Mm-hmm. waaw matuwaay lañ ci war a jël boo xam la ñuy tux la. Mm-hmm. defe naa lu xeet yooyu la mooy xam la ñuy la wala la naan la wala la ñuy xeeñtu la wala la ñuy pikiir la. Mm-hmm. lépp loo xam ne ba Ibrahima Khalil. dina tax ndaw. Hmm? ak mag gis nga nag dañuy tudd ndaw ñi dëgg la ndaw ndaw dafa am solo ci ñu bàyyi ko xel protéger ko. waaye li ëpp solo boo bàyyee xel Khalil li ko fi dugal. ñi ko fii dugal ak ñi koy jaay ak buntu ya muy jaar defe naa ne defe naa ne balaa muy agsi si ndaw ñi am na mag ñu ca ñu ñu jàpp ca loola ba mu mën a tasaaroo ba ndaw ñi mën koo gis yaakaar naa foog naa loolu. dëgg kon daal ci gàttal balaa may sonn. Mhm. nañ bàyyi suñ xel xalil xaliil mhm. dundu doomu aadama dafa am lu ko war a dafa mhm. am lu ko fi indi dafa am ku ñu fi indi. am lu tax mu indi ñu fi. waa kon nit bu ñàkkee dundam rek ñàkk xelam ñàkk bopp amatul daraay boppam loo mën a jëriñ boppam te nit bu demee bu mënta jëriñ boppam la ndax dina mën a jëri jëriñati société bi dootu mën a jëriñ jërë dootu mën a jëriñ boppam dootul mën a jëriñ kenn mhm. te yàlla nag ba mu ñu bindee dafa am lu tax mu bind ñu kon waru indiwuñu ci suuf rek mhm. ngir ñu topp suñ bakkan ba te léeg-léeg sax xalil nga dégg ñu tuumaal seytaan naan mhm. seytaane saytaane te fekk na bakkan lañ topp parce que lu ñu bëri nit a koo def di tuumaal seytaane fekk na bakkanam la topp. Mhm. kon bu ñu yaree suñ bakkan ci lépp loo xam ne xam nañ ne day yàq suñ dund di yàq suñu ëllëg. Mhm. di yàq suñu li nga xam ne tey looloo tax ñu naan nit nit nit. Mhm. tee tax bu nit nitee bu fa nekkatul rek rab rab da ngay dégg suma rab da naaw asfala saafiliin yal na yàlla musal ci loolu ñu ngi lay jaajëfal ci tomb yi bu baax a baax kon ñu tënk foofu rek wàcc di wax nañ góorgóorlu ci yoon wi nga xam ne nag loolu mooy àdduna bi mooy jub ak jubal waaw jub su mu am rek fu yoon jubee rek lépp baax waaye bu yoon dëngee rek lépp luñ tegate rek mm-hmm. loolu dootu mën a jub ngeen